tudd yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ciiñ yaakaar ne ku ko def boo ñaanee yàlla sunu borom nangu ko la ndax yooyu jëf yu baax la <laughs> bu dee salaatul nabi sunu borom moo wax ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon nag fatiha loolu la ci al imaamu ibnul qayyim wax fa talabul asma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 بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله الله أكبر الله رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن لا واشهد ان محمد رسول